ñi nañu jox ñi di waa Wave leneen li ñu jox yeneen ni euh, yi ci mel ni Orange Finance Mobile te sax ñi di waa RTP ñu ngay daal xool plainte bi nga xam ne waa Wave ñoom ñoo ko teg ci ndodd Sonatel leexale communiqué bu ñu daal di yónnee Mouhamed Sio Diop. ARTP mu ñu dénk muy saytu wàllum télécommunication ci biir réew mi bëgg a àtte coow li dox diggante Wave ak Sonatel rawatina ak filialam bii di Orange Money autorité de régulation des télécommunications et des postes génnee ab bataaxal dankaafu Sonatel. wax ko mu yemale ñëpp yemale ñëpp mooy fexe ba Wave Mobile SA Sonatel fexe bu mu yemale kook li nga xam ne moom mooy filiale bi di Orange Finance Mobile teg ko ci même condition yi bu ñu sukkandikoo ci article 76 du code des communications électroniques ARTP di yokk ci biir communiqué bi nga xamee ne génn na ko ba tey ne plainte bi nga xamee ne Wave déposé na ko ci ARTP ñoo ngi koy saytu te jàpp nañ ne bu lépp yembee dinañ am solution boo xam ne dina préserver intérêt yi nga xam mooy consommateurs yi ak Wave ak Orange ci boppam ñu fàttali ne Wave bi nga xamee ne dafa bëggoon jaay crédit ci plateforme am yi Sonatel tere ko dafa déposé woon ab plainte ca ARTP ca plainte boobee opérateur bi doon wax ne Sonatel da koy bloqué ci ay transaction waaye ci tontoom Sonatel doon weddi ba set wax ne proposé na Wave ab solution technique boo xam ne nanguwu ko léegi nag ñaari parti yépp dem ca ARTP mi nga xamee ne jamono ji ñépp a ngi koy xaar mu wut ab solution ci coow li dox diggante Wave